mu defal ko ay lo ay yoxo léeg-léeg mu solal ko xaftaan ak mbaxana su ngelaw lu ñëwee su naawee picc yi defe ne nit ku leen dàq la daw waaye du nit fa la ko naaj bay fekk fa la ko sedd bay fekk munu ca dara ku dem ndar nag danga fa gis njommor goo xam ne noonu la ko yàlla tàmbalee toroxale fii ci àdduna mu jëm ëllëg ndax yàlla àtt na ko ba noppi al oustaz Ibrahima Deer Caam nee na kooku ñu def mu taxaw ne sart njommoor googee ka doonoon jëmm ja lu mu néew néew rey na ci biir réew mi nangam lim bu takku boo xam ne ñun ñu ñëpp suñu maam mën na mënoon na caa bokk duñ ñëw kooku nag mu mënu ñëw seddanteek moom teraanga mel ni xel nanguwu yàlla àtte woon na ko ba noppi wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu azaban azima ku fi jëlee ab jullit te tay ko si sa wax ne ñoo ñaa ko tooñ ñi mu doon rey ci réew mi mënuñu ko fa mu dëkk moo fekk si fi ñu ñoom mënut a dox bañ tooñ ko ba mu di waaye bokk yéene yéene yi ña ko yónni woon su ko doxaloon ñun ñi ñëpp du duñu am mën na gën yaatu sax képp koo xam ne dañ dañ koo xam li ko tàmbalee 2000 ak léegi su pexe koo ko amoon doo ko ji muy dund ndax rey nañ maamam bu yàgg kon boog jéego yooyu ndaw yooyu doon dox ndaw yooyu ak mag ña leen ca jàppale yàlla na leen yàlla def mag ñu amu ñam bokk yu ñoom mor toroxtaaneem yomb naa leeral nit foofee mu taxaw ba mu fa taxaweek léegi ëpp na téeméeri at lu ko fay fekk kenn bëggul mu dale fa fekk picc yi di dal ci sa kaw bopp di tojal ci sa kaw di dal ci say wagg di la tojal te wolof daana wax ne picc kum tojal dalay tudde doom ah ñu de wax dëgg yàlla turandooy nit lañ gën a taamu ci turandooy picc ndax picc yi xàmmee leen yombul yàlla rek a leen xàmmee loolu doy na sëkk toroxtaane ne sàng taxaw du toog du sëgg naaj wa di ko fekk di ko lakk sawaraw yàlla wa moo gën a tàng fuuf te yàlla nee na dugal na ko ca ba noppi tàmbali na gis màndarga yoo xam ne du jëm fu jag sedd ba di ko fa fekk nit ñi dugg seeni néeg taal seeni lu leen di tàggaleeg sedd bi moom mu ne sàng ci sedd bi tàngoor ñëw mu ne sàng ca tàngoor wa kon boog gone yooyu yàlla na yàlla guddal seeni fan te moom moomee nag bis bu set yàlla yàlla di gën di dolli di ko gën a sore yërmandeem yàlla na yërmande yàlla di gën a sore ci moom ba faw ndax kat euh, taxawaay boobee la muy tegtale mooy ànd ak yàlla rek moo wóor bokk yi ñam doon rey seeni maam ña si mucc yomb nañoo topp seeni jéego lool ba ne kii fii la dëkk kii fii la dëkk kii fii dëkk at mi ñu wax ne moom la moom lañ ko fi indee woon bu fekkee sëriñ bii ñëw ñëw sa ñëw ñëw mbàkke yi day fekk muy soog a ñëw mbàkke rek ñëwam ko jëkk kese kon yàlla buuf ci kaw ñam buuf seen kaw rek waaye way juróom mënoon na caa bokk ak i doomi mbokki way juróom ci wàllug bàyyi wala wàllug ndey waaye fa llaahu xayrun xifsan wa huwa arhamu rahimin ñooñu mu tase doon jamono koo ci topp rek li ci gën a yomb mooy nga ne mën nga ni fii lañ ko denc loolu lii fa ne amuk nit la woon fi lañ denc diw waaye moom moomee réew moom dëkk bu fekkee foofu lañ ko sool ba mu dee mën nga caa sonn lool doo faa dem te doo fa gis menn gën a waree ne kii ko taxee la fi mu ne nii ndax ak texee lañ ñëwoon fii ci réew mi ñu ko samp kon boog lu mu fa gën a yàgg toroxtaanam di gën a yàgg te kuy wax lu ko fa tax a nekk it cas contact ngay nekk xawma moom cas communautaire la xawma kaa importe waaye kuy wax lu ko fa bàyyi moom cas contact ngay nekk te loolu dara jëru ko bi ñu laajee sëriñ bi nuru nuru lu dara lu muy wàññi dana dana dana kooka insha allahu danaa la tontu ndax yàlla moo ne yonent bi laa taquluna li shay'in inni faailu dalika gadan illa an yasha allah fi ñu toogee ba jant bi so ñu taal ci biir xayma bi jamono sedd la am lu dox ci kaw puj bi am ku gaaw joor ko dara mu daanu ñu faagaal faagaagal ko ne ah lañ ko tegoon ko du ko mu ne kooku sa tontongu noonu loo bëggul ku la ko niróol ak moom bul ko niróol niróol ab unku lañ ko tegoon nekkati sa ndax la te sa ndax jotewut ak kenn dara ngeen jot suñu vidéo nag a jot mën a xam nga xam ne